واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم ki ñu leen nuyu leen ziar bu baax di am mbégte ci seen teewaay ci barab bi euh, di sant bu baax ñi nga xamante ne ñoo fi indi xéewali solo yi am solo yi muy waa euh, Keren ak Orange Euh, yi nga xamante ne wax dëgg yàlla tey eh, ci màggal tubaa chaque année dañ koy ànd ak daaray kaamil euh, wax dëgg yàlla ñu leen jàppale bu baax ci wàllum ndox mi nga xamante ne moom la ñuy joxe barkeelu ci euh, màggal gi nga xamante ne fii daare kaamil ñu bari dañ fi ñëw kilifa yu bari dañ fi ñëw nit ñu bari dañ fi ñëw di soxla woo ndox woo war koo jëfandikoo euh, léegi nag bi nga xamante ne nag ñoom euh, yàgg nañ ko def ay màggal yi màggal ñu ñëw di participer ci liggéey bi ci wàllum xéewal yi nga xamante dañ koy def garaati bi di ko barkeeloo ci liggéey Cheikh Khadim bi euh, mu nekk loo xamante ni lu rëy la ci waa daare kaamil lu rëy la ci wax dëgg yàlla responsable di kilifa gi ndax it wax dëgg yàlla barab bi ngeen def toon lu mel nii ñun danañ sonn lool dana métti lool ci ñun waaye lépp dañ ko jël jaayante ak Seex Xaadim depuis weer yi feeñee ba léegi ngeen ñëw installé wu Touba di xool gox yi nga xamante ne la yoo xamante ni soxla nañ ndox soxla nañ lañ a xewlu ci wàllum ndox ngeen leen koy jox ci euh, te yàlla tax ak nga euh, participer ci liggéey bi kon bu sant bu baax baax allah wax dëgg yàlla chaque année moo koy ànd ak ñun wax dëgg yàlla sonn ci lool am ci passif nga xamante da koy jaral léppam bàyyi léppam ñëw rek ngir euh, joxe boppam ci liggéey Seex Xaadim bi kon di sant bu baax waa Orange yi nga xamante Sonatel waa Sonatel yi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom euh, yàgg nañ ak ñoom ndax fii daare kaamil ay partenaire lañ ci ndax lu bëree bëri ci wàllum équipement bi nga gis ni yëpp ci mag te ci bibliothèque bi ñoom ñoom ñooñu ci dimbali ci wàllum connexion bi ci wàllum jumtukaay yi ñuy liggéey yu bëree bëri ñoo ñu ñoo di ci participer kon nag ñoom waa Sonatel bi ñëwee euh, barkeelu ci liggéey bi nga xamante ne moom la euh, Cheikh Abdoulaat Cheikh Cheikhul Khadim taxawal pour yokk xam-xam pour naata xam-xam ñu ñëw di ànd ngeen ci magal gi bu baax leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom yokk seen man-man yokk seen taxawaay ci bak seelu xadim ñi fekk magal gi ay ati at ngeen yàgg di ko def ngeen yokk lool société bi di yokk lool moo xam Karen la moo xam Sonatel la moo xam waral te may ñaan yàlla rek ñu teewee bés bi ñu fekkee ko aussi ña luñ ci ñaan aussi yàlla nangul ñu ko ak borom bés bi asalaamaaleykum ñaan yàlla màggalug déwén ngeen ñëw ak euh, maanaam kàttan ak wéer ak sutura xéewal yu bari ñuy bokkoon ci ñi doon dispiré di sedd leen ndox yi ñeen ñëpp rek yàlla dafa leen xéewal yu baree baree baree bare ba ngeen am seen jumtukaay bopp bay mën a joxe ay xéewal comme ni ko ñëpp di joxe kon ñu ngi sant bu baax waa Kareen ak euh, Afrique Orange di ñaan yàlla suñu borom màggalug déwén incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم